amende bi ñu def xalifa Sall ak Karim Wade surtout bu Karim Wade parce que Karim Wade sàccul Karim jii ñu ñu ko sàcc mhm. Karim Wade détourné wul ah, Karim Wade ko ji Karim Wade dañ ko ne ah yow doo wax dëgg dañu gis ne yow sa alal bëri na lool mhm. te gis nga li ma la dama ne xel mënta nangu ne Karim Wade moom moom Dakar dem di mhm. Karim Wade moom moom pooru Dakar Karim Wade moom moom ek dem nañ ba ne Karim Wade même kër baayam sax woo moom la ne Ablaye Wade amul eh kër ba tax na seen yëfu dof yooyu ñu defoon ba indi lii Ablaye Wade fu mu dëkk Ablaye Wade day luye ndax këram bii juridiquement ba tey lijjant mhm. est-ce que ñun ku juddoo Sénégal gii même depuis les années soixante-dix xamoo ne Ablaye Wade am na kër ñoom seen yëfu dof yi ñu defoon tax na ba nit ñi toog tey ba Karim Wade ci boppam mënta dëkk point Ablaye Wade muy bàyyam moom kër ga mënta dëkk point donc dama la dama la bëgg wax ni non yemuñu foofu gis nga PDS en tout cas man mi même bu ko PDS te dinaa ko ñaan Karim Meïssa Wade ñaan ko ay avocat képp koo xam ne loo xam ne loi nee naa la loi mhm. moom wala wala décret ci la ñu war a baser pour agir en république. mais loolu bu loolu parce que non non c'est important c'est important parce que damay bañ. damay bañ muy yow mii sax. muy yow mii. Mhm. nga jekki jékki dans un <laughs> débat ne Karim Wade. Mhm. dafa sàcc dañ lay porter plainte. man je n'ai jamais dit ça. non non non non dama lay jox. exemple dama lay jox exemple pour wax la ni képp koo xam ne. loo xam ne CREI yi waxu ko. donc à partir d'aujourd'hui dootu leen nangooti di teg dara dootuñ ko nangu ndax. cré yi waxu ko mhm. benn juridiction mosta jiñ Karim wax sàcc ñuy détourné képp ku ko waxati dañ lay porter plainte citation directe d'accord nga wuy ji loolu leer nga expliquer fan la Karim Wade sàcc ak ku mu sàcc ak nan la sàcc